waaw sant yàlla di leen euh, xamal ni rek ñi ngi sant fu ñu toll yàlla suñu boroom di jull ci yonent bi sallallahu alayhi gërëm Cheikhul Khadim suñu wasila di gërëm euh, suñu woy wayjur yi di sant euh, kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi di di di sant yàlla dellu ci yàlla rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ñëpp dañoo jóge ci yàlla te war a delluwaat coon nag wuy ji na boroomam euh, comme ni ko ñu baax ñëpp defee ci taay ak njëkk ya donc ñu toll ci moment boo xam ni moment bu bu bu bu bu bu doy waar la waaye kenn koy def yàlla la tudd ah, ñu xam ne rek coon moom euh, ñun faramaare rek moomuñu ko coonu Sénégal la coonu àdduna la tey àdduna bi yëpp am nañu tiis ah waaye nag ah ñu sant rek te xam ni àdduna du kër ñu ñaanal ko yàlla ba. mu rëccu sax lu mu doon toogee fii ci àdduna nit ku nekk am nga sa bés kon ñu waajal ko gën a gër góorgóorlu ci jaamu yàlla ak lu àdduna xat-xat lu soxla yi bari bari ñu bàyyi yàlla xel te di ko jaamu te ñun ñëpp ñu waajal bés bi jërë ngeen jëf bon souvenir bi ma mujjee partagé ak moom suma xarit bu ñuy wax papa Abdourahmane Ndiaye doon suma xarit di xaritam aussi ñu koy wax papa Ndiaye lañ ko doon xamee eh, mu nekkoon ku baax koo xam ni xaritu coon la woon aussi mais nekk sama morom may nekk sama àndandoo euh, bi may mujjee dégg ay nouvelle am ça fait même pas dix jours euh, moom mi ngi dem foofu di jaale ji alors que bon ndekete moom tey ji moom la ñuy moom la ñuy denc waaw kon mu nekk loo xam ne njàngat la pour ñun ñëpp kenn xamul kii sera le prochain donc ñu préparé Eh, di ko ñaanal tax coon moom yaakaar naa ni mbooloo bu dee mbooloo mi ñuy wax ni yërmande la ku xool mbooloo mi xam ni ñàkkul ñoo xam ni yàlla yërëm na leen te teewal nañ ko taxawu nañ ko te am nañu yaakaar ni ah, dana xippee aljana ci kàttanu yàlla waaw.